ñaan gi daal. amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi xel mu sell. mais amiin yaa rabbi <laughs> mais parce que télé yi nag nañu wuti ay programme ah. waaw ah. ah. télé programme da baax. Ah. ñàkk programme mënul weesu. ngay def émission di invité ay nit. ñuy xas ay nit yu la gën. foofu laa mën a yem nuyu. passe maa ngi lay ziar. foofu la nga ci mën a yem. waaw. ah <laughs> maa maa delloo ziar bu maa ngi nuyu bandi nuyu auditeurs yi euh, internet yëpp di leen bu baax a baax di nuyu waa Kaaru Fajar bi ñëpp nañ nañ doxal comme band tey moom daa. <laughs> lu teng la indi de. tey tàngoor tey tey bu wow la indi tey. man ko li gars yi naan weeru koor. bénéfice. ci yàlla sunu borom di jéggulu. nga yor lu toll lépp télé. wala rajo. wala journal wala internet. góorgóorlu nga jaamu ci yàlla. invité ay nit yoo xam ne ku leen seetaan dina ci jàng dara. wala hmm. ku leen dégg jàngate dara wala ku leen liir jàngate dara. waaye dañu gis naa joo xam ne maanaam dañuy indi ay nit ñuy xas ay gor ñafa di kontaan di jubilé. waaw mais xas gor moom man bu bu weer koor sax na daawoo. waaw mais weer na weer koor. mag si sëriñ si ak ustaas yi laay dégg ci rajo ñu ne weeru bénéfice la promotion la. Hmm. soo ci daan def sax lu bon jéemal góor-góor sax def lu baax. ci programme wu xanaa xamoo ci li la yàlla jox taxi ba taxi bi la yàlla jox nga ciy liggéey hmm. ci nga mën a jaamoo yàlla tegi émission yi ñuy def nii ñaata nit ñoo ci faju bu lu bari feebar faju hmm. loo xam ne tey ji mënoo ko woon ñaata nit lañ ci defaral ñu seen kër wala jënd defal leen ay toilettes yow tam soo yoree télé wala rajo wala journal wala internet ngal la waay jëm ci góor góoru jaamu ci yàlla kenn newu la bul jox xibaaru wér wóor mais dañoo tollu jamono joo xam ne et mënuma toog ngay toog di xas nit di wax ay nit yi lu bon ci ay nit ngay jibile ñu fa nekk ña la invité di jibile hmm? <laughs> Sénégal la neex de mais nag. Ah, oh, métti na ko oh, oh, de xoolal lu waay def boppam. waaw ah, lu waay def boppam. koo xam na ko. Ah, waaw def boppam. waaw moom lu waay def rek moom sa bopp la moom. waaw lu waaye def boppam. àdduna gi noonu. abaa yow maa ngi yow la ñuy déglu. ah man kay fi ñu toll nii fu ñu jëm laa bëgg nga wax ma ko. fan tolloon démb su la neexee ñu dem fa. Hmm.